jërëjëf mbokku internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Thiaroye sur Mer quartier ba gannaaw nag nakar ak tiis bi nga xamante ni moom moo fi daal di xew oto bu bleu bi ngeen di seen sama ginnaaw moom rek la ñu daal di fekk ñetti xale yoo xam ne seen i at mu ngi toll ci 3 ans jàpp 4 ans ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen ñu daal di ñàkk seen bakkan ci anam bu doy waar loolu nag moom moo fi sabab suñu ay tànk gannaaw nag information bi nga xam ne daal dinañu koy jot ci xel xale yooyu dañu daal di rek réeroon niki démb seen famille di leen wër ba tey ci suba ay boru 7 jàpp 8 heures lañ leen wax que ne rek am na ñetti xale yoo xamante ni ñu ngi ci biir oto bi di nelaw waaye boobu fekk na ñetti xale yi daal di ñàkk ci seen bakkan loolu nag moo fi sabab suñu ay tànk ñun waa saare nag dinañu gise ak ñi nga xamante ni moo di famille bi ndax bi fi mu gaare nii sore na ak kër famille bi fi mu nekk xale yi ndax oto bi ci kanam la ñu duggoon wala ci maalu oto bi la ñu duggoon ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk a gis li nga xam ne moo di ñetti xale yooyu nga xam ne seen yi ñu ngi loon doon wër diggante démb ak tey boo tey nga xamante ne ni moom la xibaar bi daal di wadd ñoom tamit dinañ ci joxe ay leeral ndax ñoom ñett ñëpp ñoo bokk euh, maanaam ndey ak baay loolu tamit dinaa gise ak famille bi balaa may dem ci biir kër gi jaale leen ma mosawu leen tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw waaye ñaanal ñetti xale yooyu nga xam ne ñoo fi daal di bàyyeekoo yàlla yërëm leen xare leen aljannay firdawsi fa ñu jëm gënal leen fi nga xamante ni fi ñu jugee damay daal di rek doxantu dugg ci biir kër gi daal di gisee ñi nga xamante ni moo di famille xale yi bu ko defee ñu indil ñu ay leeral ci mbir moomu naka la demee ak naka la ñu fekkee xale yi yan anam la ñu gisee seen doom yooyu ah, maa ngi lay fay. tur bi naka la. El Hadj Babacar Maar El Hadj xam nga gën kaa xamee ci El Hadj Maar. d'accord El Maar nga am yow tamit doom ci ñi nga xamante ne ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci biir oto bi. Hmm. gannaaw ba ñu la ko jaalee masawu la tiis bi nga xam ne moo dal ci sa kaw euh, mën nga ñu wax ban xele moo ciy sa doom. Euh, euh, Momadou Maar waaw. naka la mbir yi demee exactement papa. mbir mi mbir mi daal seen maam moo leen yónni woon ay bool ñu yóbbu ko. si doomam biñ ko yóbboo ba ba wàññeeku am na sama benn jarbaat boo xam ne ci këram lan romba dañ ko rombee sama jarbaat bi dañ ne dem leen ñibbi bi ñu leen demee ñibbi après bi ñu toogee ba ay 11 yooyu 3 heures yooyu gisuñu leen après ñu commencé leen seet bi lay commencé seet daanaka ba ay minuit gisuñu leen waaw ba ay minuit gisuñu leen après si leen tëdd bi ñu yeewoo si la ma fekk fii sax man ki ma oo dañoo ñëwal boobu sax soluma yére maa ngi sol benn tiset ak benn tubay nii ma ne ko tey ngaa bàyyi kon ma sol sama yére mu ne déedéet ñan dem rek après su leen dem ba école arabe bi ñu ne xale yi fi leen leen dugal mhm. xibaar bi lañ ci am waaw euh, moom du ko tara d'accord gannaaw bañ leen waxee loolu ba ngeen demee jot nga gis xale yi wala mhm. non doo ma bu ñu demee yi fa nekk ak waaw ñoom nangu kenn gis leen ak waaw ak sapeurs yeeg yooyu mhm. mais bi leen di génn gis nañ leen nii mais dañ leen laxas hmm. waaw. même bi ñu leen génnee ci oto bi yóbbu leen hôpital aussi yenn yow mi nga xam ne yaay seen papa jotoo gis xele yi ba léegi. ba léegi jotuma léegi sama mag sa moo àndoon ak moom ndax instant boobu mënatuma téye sama bopp après ñoom ñu mën a jaru ngay dem kon après sama mag bi moo ànd ak ñoom dem waaw. ba tey xamu leen lan moo dugal xele yi ci biir oto bi. xale yi daal kenn xamul leen fa dugal. mais xam naa ne xale yi ma gis ñoom mënunoo dugal seen bopp foofu ndax entraînement la oto mhm. xale yi am 4 ans ki ci gën a mag 5 la am keneen ki 3 ans kon ñooñu mën a góob mën a mënoon a yëkki maale oto ba ci dugal seen bopp. Ah, ci maal bi lañ dugal seen bopp. waaw lan leen fekk waaw ci maal bi waaw. Mhm. daal da maanaam dañu am ñoo xam ne dañ faa dugal xale yi wala. Mhm, waaw ba pare en même temps ki leen dem ba tiim leen daal na xale yi ñu ngi génne deret waaw. waaw ñu daal lañ ci am mhm. ah xam nga kuy génn deret am nga cicatrice. mais man moom gisuma leen jaxaran jaxaran ndax sama xol mooy moom àgg ba ci ñoom mais waaw. Mhm. non jotoon kenn de xale yi yàgg na def loolu. du c'est pas c'est la première fois mhm. daanaka daanaka at mii yëpp. bu seen maam añee ba pare xam nga seen doom moo ko yàkkal bu ñu añee ba pare moom mooy xale yi ñooy yóbbu bool yi te eh, démb bi ñu yóbboo bool nag dañ kaa daa def bu ñu yóbbu seen aji ad awa ne leen toog leen dëkki mais démb ñoom bi ñu yóbboo bool yi dañ leen dëkk mu ne dañuy dem waaw duñ fi toog dañuy dem waaw du ma saan dem fa la yendu waaw c'est la première fois waaw hmm. non du sama taaw mooy sama jaat waaw maanaam xale bu ma yab miinoon la ku daa kaf man da yéeg ci sa man maanaam dina ma wéetal trop nag ma na dinaa ko yàlla waaw dinaa wéetali ko yàlla waaw waaw dama kaa miinoon trop trop trop fu moom fasaani fekk rek bu ma yónnee xale moom danaa mooy dem may mam ndox su ma nee am ma dama may ma ndox mu ne déedéet am ma du may maay dem hmm, waaw papa yomb na ci yéen tey ngeen ñàkk seen ñetti doom xamu leen ba xam ndax yàlla moo ñëw ba xamu leen ba xam ndax leneen moom moo fi jaar aussi. Mhm. waaw loolu du neex xam ndax démb ba ay minuit danoo nekk ci fitna man démb toute la journée benn yoon laa lekk toute la journée ba ani asamaan sete nii sax ndekki sax jaaraguma ci kon yaakaar naa ñaari fan a ngi benn yoon laa lekk waaw ndax tiit ak jaaxle ndax boo nekkee ci tiis doo mën a lekk. Mhm. non c'est la première fois mhm, waaw mooy xam nga dangay ngay yor sa oto bu daal di panne dépanne ko bare gaare ka xam nga oto bu def foofu trois ans boroom jëloo ko fa maire bi jëloo ko fa loolu lu nekk mën a fa am en même temps nga indi conteneur sës ko ci ginnaaw oto yi waaw waaw moo jege oto yi nii maanaam nit mën naa laaxatu defu dara allahu yaxlamu yàlla rek moo xam waaw mais daal amul sécurité boo xoolee daal ci fële boo xoolee situation bi ni mu demee rek nga xam ne fii amul sécurité bu leen neexee tam bu mu paree ñu ànd fa ma dem leen wan leen ne yëpp waaw ñu xool site bi ni mu demee ak yooyu. Mhm. non man nag dama dëgg ñu ne gardien bi la ki doon garde foofu waaw mais borom oto bi daal ak ak gardien bi dama dëgg ñu ne police jël na leen yóbbu waaw. Mhm. Hmm. non caare sax pour pour lii man ah man de man ko fi doo gis moo tax pour parent yi bàyyi seen xel loo caare lii nit ñu fee duggoo bay def ñaaw ñaawteef yenn yi xanaa nga def ko tey ba ñu bañ laa gis mais suñu la gisee jàmm jeex na ci yow te xale yi du benn yoon bi de dañoo yóbbu aña yóbbu di jëli yóbbuy bool yóbbuy bool ba sonna lii di doog am kon mi foofu nii dem ñoom miin nañ ko waaw waaw. sëñ bi gannaaw ñu ngi fii ci oto yi nga xamante ni ñoom ñoo gaare bi ñu fekk xale yi hmm. euh, ndax mën nga ñu expliquer ci ban oto la ngeen ko fekk. waaw mooy oto bi oto bulo bi waaw fi lañ leen fekk jot naa ne xale yi mënuñoo yëkkali fii ba dugal fi seen bopp ndax xale yi am 4 ans ki ci gën a mag cinq ans la am ki ci gën a ndaw am trois ans.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 waaw jóge fi waaw ndax caare am na am sécurité ndax fii yëpp amul sécurité hmm. déedéet waaw waaw hmm.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 ñu naa way xale da dañoo dee man a xale ya ñu ne ma xale yi ñu doon démb ñu sa oto benn oto lañ leen fekk fële bu fekkee no ñëw fa dugal seen bopp il faut ñu def bëri boo xam ne bi dina nit dina xam ne fii ay xale ñoo fi ne. kon daal da nga am ku leen fi dugal biir oto bi. nun daal yàlla daal a xam yàlla daal a xam bu leen fa nit dugalee ah yàlla naka yàlla nit bu fekkee ñëw fa dugal seen bopp mooy loolu rek.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 si école arabe bi talibaa ngi nii ak kër gi fii sorewul yàlla daal ndax biñ leen annoncé que ne xale yi daal dinay génn àdduna ci biir oto bi dem nga fa ba gis leen wala. dafa dem ñu wàññi ma. Ah, man dew ma fa te ña fa demoon gisaguma leen. ah guleet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 jërëjëf mbokk internet yi gannaaw nii lañ leen ko waxee ñu ngi file ci caaro sur ñu togg nag ak kilifa goo xamante nii euh, papa la ci ñetti xele yi nga xam ni ñoom lañ daal di fekk ci oto bi ñu daal di ñàkk bu seen bakkan euh, gannaaw dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi bu ko defee mu indil ñu ay leeral ci mbir moomu naka la demee ak naka la ñu yégee tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay euh, Ousseynou Niang ñu gën maa xam ci Ousseynou Laye. Ousseynou Ndiaye lan nga ci xale yi. waaw ñaañu seen ndijaay la kenn ki papaam la waaw. d'accord gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal di daal rek ci seen kaw lan nga ñu mën a jox ci ay leeral ci mbir mi exactement naka la demee ak naka ngeen jotee xibaar bu tiis. waaw euh, man bi ma xëyee dama liggéey bi euh, ma toogee ba ay 5 heures soo mag bu jigéen woo ma ne ma la moo xew sama kër papa ma na ko lu fa xew man maa ngi garage mu ne ma dañoo wax ne xale yi dañoo réer man ko ay yëguma dara de ma jox ko sama numéro ci laa obligé jóge fi may liggéey daw ñibbisi bi ma ñibbisee ma laaj suma yaay mu ne ma wonoon la ba sonn mu ñu laa jot ma ne ko xale yi kañ leen génn kër gi mu ne ma ay 11h kii gën a féete mag sama yaay moo ko yónni suma kër seex pour mu yóbbu bool bi ko sama seex may woon añ bi mu koy yóbbu ñaar ñu ndaw ñi toppat ci ginnaawam yéen bokk sama yaay mu ci biir euh, bi ñu yeggee suma kër seex bi lu ci ëpp dañ fay dem fa la ñu ba sama doom daf fay dem di euh, bi mu yeggee ñu sama seex bi tey duñ fi yendu dañuy ñibbi sama seex bi ne yéen a xam biñ génnee dem kooku euh, ñëwaat ci kër gi ne sama yaay an xale yi ndax ñoom ban jugee kër gi neen ñu fa yendu ñibbisi nañ sama yaay nag essiwuñu ci kër gi ci lañ commencé di wër di wër euh, ba timis bi ma ñëwee ñu wax ma ko ma dem euh, fële ci police wu ginnaaw raay déclaré ko foofu ñibbisi ñu waxaat ma bàjjenu gox yi ne ginnaaw ma delluwaat ginnaaw raay ci kër bàjjenu gox yi wax leen ko pour en bu ñu fi gisee ay xale yu for ñu wax leen ma bàyyi fa sama numéro bàyyi itam police Pikine sama numéro bi ma ñëwee euh, tëdd fële suma kër suñu soo kër bu ndaw bi euh, suba gi maanaam guddi gi bi ma ñëwee bi ma ñibbisee 23h euh, ba damaa ñibbi dama ñibbi tëdd suma kër fële bàyyi fii sama ñoom yaay bi ma tëddee foofu ba 7h su ma seex woo ma ne ma foo ne ma ne ko man maa fii suma kër ñibbeegoo ma ne ko ñibbeegu ma mu ne ma dafa am ay xale yu ñu wax ne da leen gis ci oto bu yàqu fii ci côté kii bi ginnaaw école arabe bi est ce que fa doo fa dem xool yi ma ne ndax dem nga fa mu ne mënu ma faa dem ci laa jóg sol su ma yëre ñëw bi ma ñëwee sus fekk naa gendarmerie ak sapeur ñu ne foofu bi ma ñëwee pour dugg pour xool ñoom ñu teew ma ne ma doo dugg parce que police scientifique la ñuy xaar euh, may lay may xale la bëgg gis les commandant bi wan ma ñetti photo yi ndax ndax boo gisee ni ngeen xam may naa leen xam ñu génne foto yi wan ma ma génne foto xale yi ma yor may seen i photo yi nii daanaka kii mooy kii kii mooy kii waaw. d'accord xale yi ñaata at lañ am. 4 euh, ans. waaw ñoom ñett ñëpp ndax xam na kenn kii même bu fekkee ne moo ciy mag tam cinq ans matagul matagul waaw d'accord ñetti xale yi ay góor lañ wala ay jigéen waaw ñaari góor kenn ku jigéen gannaaw bi la commanda wonee photo yi jot nga gis moom jot na la bàyyi nga gis xale yi wala ci foto rek nga la yemale non nangul ma gis ko euh, ci photo rek lañ ma ko won won waaw bi mu la wonee photo yi tamit da nga gis ci xele yi maanaam loo xamante ni dafay nuru ay gaañu gaañu wala loo xam ne dafay nuru xoj wala leneen. no euh, gisu wax dëgg yàlla gisuma benn euh, signe boo xam ni euh, gaañu gaañ la ci ñoom wala dara waaw parce que même bi ma génnee sax am na ay ñu may dégg ñu wax naa da leen rëdd nangam am na ci ko ne waxalu la wóor waaw ndax gisoo xale bi nga bëgg na leen rendi waaw loolu ay ay rumeur la ñuy wax rek waaw mais man mi gis gisuma fenn yoon fu leen rendi wala gaañu gisuma ko gisuma ko waaw waaw comme mbir yu mel nii bu amee information yi nga xam ne daf ciy am dafi nekk loo xamante ni lu bëri la xëy na loolu moo tax nit ñi di waxee côté bu ne ndax gis nañu exemple ñaari xele yi nga xam ne dañ leen a faatoon fale ca kër Mbay Fall aussi xëy na loolu moo tax tey aussi ñu annoncé leen que ne ñetti xale yi daal dinañu ñàkk seen bakkan ndax ñoom ñetti ñëpp ñoo ñàkk seen bakkan ci oto bi wala am na ñoo xamante ni jot nañu dem ci hôpital ñoom ñette ñëpp lañu fekk ñàkk seen bakkan ci oto bi ñoom ñette ba tey xamuñu leen lan moo leen faat wala déet. non xamuñu parce que bi ñëwee jël euh, corps yóbbu ko gendarmerie bi ñu yeggee ñoom ñu def seen liggéey euh, ñu àndaat ak corps bi euh, dem hôpitalu camp ñoom def na war a def léegi demee 6 heures la ñuy dem fële CTO pour def autopsie bi. waaw ah, d'accord gis nañu fi xale yu nekkoon aussi nekkul foo xamante ne xëy na fu calme la foo xam ne xale yi mën nañ faa dugg te kenn gisu leen ndax jot ngeen a laajte foofu ndax kenn gisul bi xale yi di dugg wala. waaw loolu moom euh, laajteegu ma ko parce que euh, kon damaa guddee wàcc démb xëy lii dal suma kaw euh, talu may gëstu laaj benn information ci loolu waaw noonu non non non xamuñu xamuñu de xamuñu. ndax ci seen wër aussi jotoon ngeen a yegg fi nga xamante ne foofu la oto yi nekk wala seen wër yóogul foofu. waaw parce que même yaayam mu ngi wax ne ñaar ñaar ñu góor seen yaay ñoo àndoon ba sànq sax ñoom ñu ngi wax ne ñoom bi ñuy wër xale yi côté bi nga xam ne la oto yi ne. ñoom taxaw nañ foofu di am ku ñuy waxal nakaam suñu doom la ñuy euh, la ñuy wër te ñoom waaw fi ñu fekk fa tam fi ñu taxaw ñoom boo dee xool oto bi seen ginnaaw la nekk ah. ci côté armée te ñoom ñu ngi taxaw foofu euh, doon laajte waaw non dégguñu benn biir bi mais boobu loolu euh, ay 5 heures la dégguñu benn biir bi mhm. waaw lan nga mën a wax maanaam message bi nga xamante ni mën nga ko aussi jëmale ko ci gone yi léegi waaw xanaa di ñeen ñaaral rek yàlla xaaree na aljana fa ñu jëm gën fi ñu jógee ci euh, ñaan tamit euh, yoon def liggéeyam waaw waaw yoon def liggéeyam euh, xale yi dem nañ pare mënuñ doonatuñoo ñëwaat li des mooy di leen ñaanal ñun ñi fi des tamit suñu borom may nu xolom muñ kese waaw waaw. waaw li ma leen di ñuy gën di fee ci xale yi waaw parce que jamono doy na war daal doy na war dañuy gën di fee ci xale yi seulement nag fii dëkkub lébu la. Euh, automatiquement sax am naa soo xarit bi mu ñëwee ah, xalaat ngeen géej gi ma ne ko non non man xalaatuma géej ndax xale yi am nañu habitude ñaare duñ dem géej te añu ba pare waaw lu yëpp ngoon ngi la ñuy dem géej te man suma xel euh, xalaatu côté boobu parce que bu dee géej xale yi duñ dem fu sori ci tefes ga ñu toog rek seen i morom sangu génnal ñibbisi waaw ah non non non non côté boobu amuñu benn problème ko côté boobu waaw amuñu benn problème ci côté boobu waaw man moom wax dëgg yàlla euh, bu ma juumul barki dem moo ci mujj am naa gan gu ne ci kaw euh, lay kenn kii nga xam ne moo disparaître nii ci jooy magam ju jigéen andi ko ci man ñoom du ñu wax papa tonton la ñuy wax ba ci sama doom tonton la ñuy wax même sama yaay tonton lay wax euh, mu ñëw ma ne ko lan la mu ne ma saaye moo ko dóor ma ne ko lu mu def ba mu dóor ko mu ne ma nee nañ ko jëndal boisson boobu fi ma toog benn 5000 francs laa yor dama obligé wàcc ànd ak moom dem uti weccit ba toj 5000 bi. Euh, dem jënd boisson cent franc jox ko euh, mu pour mu noppi waaw te wax dëgg yàlla man moom euh, yàlla dafa def depuis sama papa di dund li mu leen tàmmaloon saa yu wàcc de indi sëriñ ci ku ne mu jox la ci xale yi loolu lan dëkkee man seen papa ne fu mu ngi Espagne kenn ku jigéen ki mais bu fi seen papa nekkee sax man lañ gën a ñuux ko seen papa waaw boo ma wàccee tontu ñëw rek ngay dégg waaw ndax yomb na ci yéen naka ngeen koy dundee jamono yi bu famille ñàkkee kenn sax day metti waxuma laa nag nga ñàkk ñetti xale yoo xamante ni aussi ñu jege woon la aussi ci yéen waaw métti na métti na parce que même bi ma demee hôpital euh, sama papa mi moo lañu desal maa ngi ko koy wax ma ne ko sama yaay laay ñeewantal parce que xale yi xamuñu ko dul moom te moom wératul wératul euh, parce que euh, même sànq bi ñuy nekkee bi sapeur di yóbbu koor yi muy ngi xataraayu ci kër gi ne day ñëw bala dañ mu mujjee woo téléphone ñu jox ko téléphone pour wax ak moom parce que euh, vendredi bi passé euh, ma ma juumul euh, laa ko yóbbu fii hôpital ñu téye ko parce que wératul wératul ñoo nekkoon wétalam waaw man moom laa ciy gën a ñeewanteel daal waaw amin amin amin soxna si maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay tur bi naka la wañaama d'accord Awa Niang nga nekk kenn ki nga xamante ni yow la xale yi seet si woon euh, ba euh, mbir yi am ba daal di ñàkk seen bakkan ci biir oto bi ndax mën nga ñu expliquer exactement mbir yi naka la demee ban heure la fa xele yi ñëw ak ban heure la fa xale yu jóge waaw xale yi moom ay 11 heures jëm midi lan ñëw sama kër indi ay bool seen maam mooy leen ko jox sax nee dem leen kër awa parce que xale yi li ñuy nekk ci géej gi moo tax seen maam bu xëyee lan laa dem leen kër awa ko parce que seen yaay day xëy liggéeyi léegi bi ñëwee sama kër tey démb ñu ne ma ñoom duñu toog tey dañuy dem ah lu tax di leen toog ngeen añ ñu day daal tooganu añ dañuy dem moom xale yi mi jàpp midi 11 yooyu daal côté yooyu la waa ma daal leen di bàyyi ñu dem mais seen maam su leen yabalee foofu da yabalaat ndaw ba xam xale yi ëssi nañ wala déet yaa ngi dégg bi mu yabalee ndaw nag ma ne xale yi ëssi mais tey di nangu ñoo toog dem nanu xale yi bi ñu ko waxee seen maam seen maam daal di koy wax benn goraam daan nekk xale yi nekkuñu kër awa dem nanu comme man damay dem dëj ba dama nga xooli ma xale yi yaa ngi dégg goro bi daal di nekk waaw xale yi ñëwaat sama kër ne ana xale yi ma nekk a ah, xale yi nekkuñu fi tey mais xale yi bi ñu demee man ni ma ko naa ci biti ma daal di laajte borom boulangerie bi mu ne ma xale yi ñëw nañ fi ba ñaan ma mburu maye mburu génnagul parce que kii livré seen ma mburu xale yi dañ kaa xam waaw bi ñu waxee loolu nag ñoom ñu daal di jubal daal di dem bi ñu jubalee dem nag ba ay deux heures ma ñëw fii ñu ne ana xale yi ñu ne ana xale yi may yéen dal ngeen xel parce que xale yi yu ñu jógee ci kër gi ba léegi kenn gisul leen ngeen toog di añ mm-hmm. si la demee seen maam dëj ba mu demoon nee na moom mu toog xel bi daal dalul mm-hmm. mu daal di nekk moom jug na topp ko bi di wër di wër ba sonn na gisul mm-hmm. bi mu comme mag nga toogal léegi ñun ñu jéem a wër xale yi seen di wër xale yi di wër yaa dem ci kër chef de quartier yeeg bargeño gox yeeg dem police ginnaaw raay xam nga fépp loo kii rek nga daal di dem kii daal dem euh, police wu fee Pikine waa bi bi mu demee ñooñu woo ko laaj ko renseignement ba ma woowee tamit man li ma xam ci xale yi man moom laa leen wax parce que xale yàgg nañoo baagante kër ga yàgg voilà ñoom bu nekkee ci man seen maam seen xel day daal parce que bu nekkee ci mbedd mi bëree bi ak yooyu daal moo leen kër awa parce que xale yi dañuy ñëw ma daal leen di accueillir xam nga maanaam yaatal leen daal moo tax xale yi chaque jour bu ñu yeewoo dañ naa kër awa kër awa dañu jëm voilà ñu toog dañuy ñu toog bu guddi ñu ne dañuy ñibbi ñu saa ñu toog ba ay 5 heures ñu dañuy ñibbi mais dimba daal ñoo ñëw dañ ne ah awa dañuy ñibbi de ah, comme loolu ngeen bëgg lépp leen ngeen ñibbi wóor na yàlla. d' accord démb la ñu ñëw sa kër ne la tey yenduwuñu dañuy ñibbi tey nga xëy ñu ne la xele yi daal dinañ leen gis ci oto bi ñu daal di ñàkk seen bakkan naka nga yéegee information bi ndax bi xale yi ñàkkee seen bakkan ci oto bi tamit jot nga leen a gis wala. non sama benn doom baay bu ma dëkkal suñu kër ñoo dendee moo ñëw di yuux di yuux ma dégg xam ne kooku sama binoom baay bi la ma daw nekk yow lan la mu ne ma aw xale yaa ngi ci oto ba xale yi dee dañ ci oto ba ma ne ko loolu lu ma leen nekke parce que ñun ñëpp démb ñu ngi wër côté usine seetkat yeeg fu dem ñu ne xale ñu ngi ciy loxo ah ñoom fépp boo xamante ni xam na mën nañ dem pour xale yi kii rek seetkat yi fii ba yëmbal dem nañ fa fii ba yëmbal ban fa demee ñu ne xale yaa ngi ciy loxo xale yaa ngi ciy loxo daal lañu ñuy wax te oto boobu ñuy wax oto bi sumu mbeddu kër la muy mbeddu école arabe bi waaw foofu la oto bi gaare oto bi moom yàgg na foofu moom mel nee naa man lu xale yi mën a def ba dijji oto bi ba war a mën a dugga man loolu xaw na ma yéem daal waaw loolu moom man laal jaaxal na ma daal bi ma waxee loolu nag ne ma xale yaa ngi oto bi sama seex bu góor bi mu ci kër gi ma woo ko 7 léegi comme problème bi am na na nga ba sunu yaay bu mu ko yëg yow daal dawal nga ñëw si rek ak beneen xale bi papaam bu ñëwee daal ñu xool ba xam lan la mais fële xale yi nekk moom mënuma faa dem di xool xale yi mënumaa xool xale yi ah, xamu leen ba tey tamit xale yi ban heure la ñu dugg ci oto bi xamu leen lan moo leen fa dugal aussi non xamuñu parce que man heure bi ñu sama kër rek man laa laa xam te heure bi ñu quitté sama kër xale yi ñëwuñu fii ndax bi ñu quitté sama kër seen maam yónnee war na ndaw pour ba xam xale yaa ngi fi ma ne ko xale yi dem nañu loolu daal man waa moom naa ci d'accord ndax ñetti xale yi ñoom ñoo bokk ndey ak baay wala. mais ñetti xale yooyu maa seen yaay ñoo bokk ndey ak baay muy ñaar ñu jigéen ñi ak sama beneen rakk bu góor kooku moom mi ngi Espagne. doom bu jigéen la ñeneen ñi sama ñaari rakk yu jigéen ñi kenn ku si nekk sa doom bu góor la ku si nekk am nga 4 ans ku jigéen ki daal mooy war a am ay 3 ans et ay xale lan waaw. d'accord ndax yomb na ci yéen jamono yi naka ngeen koy dundee. ah mit na loolu wax dëgg yàlla mit na rek fa mit yam moom mit na parce que xale yi ay xale lan tuut tànk suñu xëyee daanaka seen maam wettali bu buñ toogee ba seen xel nekk ci géej daw nañ géej sango seen maam sax daf leen tere géej mais xam nga doomi lébu moom mënoo kaa dañuy daw géej seen maam seeti leen ñun ñëw si seen maam toog si toog seen maam ba heure ku si ne heure tudd jot nga daal di dem si sa sa yaay chaque jour chaque jour chaque jour dañuy ñëw ci man chaque jour duñu jël la bu ñëwulee suba dinañ ñëw ngoon ñoom daal dañuy bàggal sama kër ak seen seen kër maam. waaw d'accord ndax oto bi nga xam ne moom la ñu fekk xale yi sorewul ak seen kër bi ngeen di wër xale yi jot ngeen a dem ba ci oto bi wala jotu leen a xool ko te yooyu non bi ñu wër xale yi oto bi dañ koy romb duñ dugg ci dañuy romb oto bi nee naa fekkate ni heure boobu xale yi ñu ngi ci oto bi ndax xam na xale yi yeew nañ yeew goo xamante ne bu ñu séenee ñoom din fugg veeru oto bi signalé wu ne ñoom ñi ngi fii mais daal yàlla du nga xam daal yàlla du nga xam parce que mbedd boobu jaanan fa lu man ñett yoon xam ne yoon ba si guddi ay une heure du matin bi ma jibbi romb naa mbedd boobu wetu école bi. romb mbedd yi aussi amul kenn ku la xam ne wax na la ne xale yi dugg nañ ci oto bi wala kenn koo xam ne wax na la xale yi romb nañ fii wala. waaw parce que ñi ma xam bi ma gëstoo tamit ci ngoon gi di laajte di seet nee nañ ma xale yi romb nañu fi. am na ko xamante ni day liggéey maçon mi ngi foofu ba ma ko laajee ndax gisoo xale yi mu ne ma xale yi romb nañ fi di dem parce que xam xale yi miin nan maanaam dem beeg ñëw bi waaw miin nan ko waaw miin nan ko xale yi daal samay doom lan daal parce que xale yi dañoo ja mel ni rek man maa leen su ko jur parce que ni mel ci man mel nu ko sax seen yaay ak seen maam billaahi. Mhm. billaahi ba démb bi ma taajee añ sax sama bool dafa wéet sama njëkke bi daal ne waa awa ana xale yi ma nekk xale yi day neen tey duñu yendu dañuy dem nii ma waxtaan ak moom nekk xale yi neen tey duñu yendu dañuy dem mhm. ah miti rek ma ne ko miti nalaw ma ba asamaan set nalaw ma ba 6 heures du matin laa jug ne xaaral ma sang xale yi sangu mën a daw kër ga xool ba xam xale yi lu ñu ci wax daal. waaw merci beaucoup waay. Ah, sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. Mm, tur bi naka la. Ababacar Niang. d'accord Ababacar lan nga ci ñetti xale yi nga xam ne ñoo daal di ñàkk seen bakkan. bon man seen nijaay laa. sama seen seen baay laa tamit waaw. kon ndax mën nga ñu expliquer tuuti rek kan moo nga xamante ni moo njëkk a gis ñetti xele yi ci biir oto bi ak kan moo woo famille bi. Mm, waaw xale yi moom euh, chauffeur bi moo leen njëkk a gis mooy borom auto bi parce que oto bi il paraît que en panne nekkoon quoi. Ah, léegi moom dafa waroon mu woo ay mécanicien ñu ñëw foofu noonu réparé oto bi après si la ñëwee foofu xëy ay 6 heures 7 yooyu noonu. ñëwee xool tijji oto bi oto bi nag tëjewul woon il ce qui paraît après si la tijjee ñëw tijji mu gis ne am na ñetti xale yu nekk si biir. Mhm. comme que parking bi amoon na ñi fa nekkoon ñi garde mhm. mu daal di woo vigile bi ne que am na ay xale yu fi nelaw démb quoi. Mhm. mais moom il n'était xale yi gaañu nañ ou pas. waaw léegi kii bi vigile bi moom moo ñëw wax carrément ni xale yi dañoo gaañu. si la demee woo dérég de quartier bi. ne leen carrément am na ay xale yu fi gaañu. si lañ xamee ne nekk xale yi ñu doon war démb. ñoom ñoo nekk foofu noonu. Mm. d'accord bi leen chauffeur bi waxee loolu ndax yow mi nga xam ne seen nijaay nga jot nga gis xele yi wala. non man jotuma gis xale yi dama ñëw je suis venu retard parce que man bu ma ñëwee aussi fekk na la gendarmerie ak sapeur ñoom barricadé nañ foofu noonu luñ joto jot am foofu mooy juste ay photo waaw. mais jot nga gis photo yi xale yi. waaw photo yi jot na leen gis waaw. ndax gis nga ci ñoom lenn luy firndeel que xale yi dañ leen a sàkkal maanaam ku ñu xoj wala ku ñu dóor wala nangam. non non non si luñ jot a gis si photo yi moom amuñ dara preuve boo xamante ne mun nañ tirer loo xamante ne preuve d'agressivité la wala leneen quoi mm-hmm. juste des images yoo xamante ne ay xale yu dee lañ waaw. d'accord ndax borom oto bi moom jot na expliquer ndax oto bi daf ko tëjoon caabi wala dafa bàyyi woon noonu porte bi wala. non non oto bi moom ba mu nekkee foofu en panne moom Euh, moom nee na tëju ko woon ak caabi waaw waaw tëju ko woon waaw ndaxoo bàyyi woon noonu rek waaw léegi moom mécanicien la woo ñëw pour mu réparer jour boobu mu tombé juste ay xale nekk si biir oto bi léegi amul woon kenn ku mu doon woo kurul kuy garder foofu noonu léegi kooku moo ñëw door a alerter nit ñi en commençant par le délégué de quartier. d' accord kiy garder aussi waxul ko ne jot na gis xale yi bi ñu fiy dugg wala gisu leen. non moom à part informer nit ñi amul leneen lu ñuy waxaat loo xamante ne moom lu jëm si loolu. Mhm. Mhm. naka ngeen di dundee jamono yi xibaar bi nga xam ne moo dal ci seen kaw ndax metti na loolu aussi. waaw waaw affaire yi kay métti na moom parce que ay xale yoo xamante ne entre trois et quatre ans jékki-jékki ni am fleur de l'âge ni ñu disparaître un moment l'autre bilaay métti na trop moom seen yaay ak su ñun ñi aussi xanaa di sant yàlla rek xam ne ndogal moom ala kulli xaalima bu naree am moo kenn mënu si dara. ñetti xale yi ñoo bokk papa wala. non ñetti xale yi bokkuñ ñëpp bokkuñu aussi tamit. waaw ñe kenn ku si nekk ak yaayam ak kenn koo xamante ne euh, maak moom maak maak seen papa ñoo bokk mhm. Mhm. yéen seen yaay mhm. waaw mais ñëpp samay mag leen quoi waaw samay mag d'accord jot ngoon ci xale yi wala non ba léegi jotuñu si koor yi parce que ba sapeur pompier ñëwee dafa yóbbu xale yi hôpital léegi bam leen yóbbee pare si pour defal leen autopsie camp ba foofu noonu mais après pare dafa mel ni ba saturé dañ leen mujjee yóbbu ba CTO léegi jotuñoo dem nag dañ leen jox rendez-vous suba à 6 heures. kon daal xale yi ci gàttal démb la ñu réer tey la ñu feeñ ci biir oto bi. waaw démb daal la ñu réer vers 11 heures midi la ñu réer ñu wër leen ba nii nii nii fi nga leen fi leen gisee nag démb euh, sama mag ñoom ñu ngi fa woon doon nañ fa waxtaanee lool noonu mais bon gisuñu benn signe boo xamante ne xale yi ils étaient à bord d'une voiture fi ñu gisee xale yi maanaam ki fi tey. ay say mag ñoom wër nañ ba côté boobu ba taxaw foofu mais dégguñu benn bruit bi firndeel que xale yi ñu ngi ci biir oto bi. Mhm. waaw waaw non benn bruit moo dëgg fa yàlla léegi tey la ñuy yeew ñu door xam ni ñoom sax ils étaient surpris parce ñoom nee dem nañ foofu noonu mais nag amuñu si beneen preuve boo xamante ne moom buy wane ni dara moo fa xew. kon amu leen leen luy firndeel xale yi ci biir oto bi la fanaan. waaw noonu amuñu benn preuve moom dëgg fa lan ngeen ci sàkku ci yoon ci jamono yi comme euh, li nga xamante ni dal na ci seen kaw. ah instant bi moom xanaa di comme que seen liggéey la ñoom ñoo ñu mën a taxaw. ñu def le maximum possible ñu mën a am au moins éclaircissement boo xamante ni dina mën a dal suñu biir xel. waaw di sensibiliser waale aussi nit ñi aussi ñu def attention parce que dafa metti trop waaw ñu yokk beaucoup de sécurité envers les enfants ana borom oto bi moom euh, dem na wuy ji yoon wala moom mu ngi fi. waaw borom oto bi jot nañ ko woo posé ko ay question waaw merci. merci ok merci. yi comme niñ leen ko waxee saa bu ñu ñëwee ci koñ wala ñu dem fenn li ñuy njëkk def mooy gisee ki nga xam ne moo jiitee koñ boobu ñu ngi nak toog ak ki nga xamante ni moo di chef de quartier euh, dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoo bu ko defee mu daal di indil ñu ay leeral ci li nga xam ne moo xew ci quartier am naka la demee ak naka la yéegee xibaar bi Papa ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di delloo nuyoo ñu leen di dalal ak jàmm di ñaan yàlla information bu ngeen fi jëlee rek yàlla na dëppoo ak réalité incha allah El Hadj Issa Diop. El Hadj Issa ca Sàncaba Thiaroye sur ko délégué gannaaw information bi nga xam ne moom la ñu dégg ba tax ñu daal di ñëw fii seet si la muy mbirum ñetti xale yi nga xam ne ñoom lañ fekk mu daal di ñàkk seen bakkan ci biir oto bi ndax mën nga ñu indil ay leeral ci naka nga yégee xibaar bi nga xamante ni moo dal ci seen kaw ndax jot nga gis xale yi tamit. Euh, ni ma ko yëgee mooy gardien dépôt de gaz bi xam nga dafay profité waale am ñu muy garde waaleel seen oto donc suba teel vers quatre heures et li ma fëgg. quatre du matin tey ni ma dafa am ay xale yu nekk ci oto benn oto fii leeralu ma nag naka la demee pour man kon ay xale la yoo xam ne ay vagabond lañu rek ma ne ko bàyyi leen foofu ba ñu julli ba pare am na sama benn dëkkandoo euh, mooy nodd ci jàkk ji mu rendre ko ci compte ne wax ko wax ko affaire bi daal kooku tam yebal sama beneen dëkkandoo mu ñëw informé ma fekk maa ngi si sama virgule ma ne ko nii demal ba ci kanam donc bi ma jógee laa génn dem gis gardien bi laaj ko exactement lan moo xew mu ne ma nañ dem ñu ànd ba ci oto bi mu ubbi mu ne ma di moo xew ma ne ko mais lii boo ma ko waxee woon ci suba joxam xam ñuy def alors donc sama dëkkandoo boobu jot na woo brigade caaro yi informé leen man tamit. sama devoir la ma woo brigade bi informé leen ma def loolu euh, commandant de brigade bi dama seetal xale yi tappel seen poul ba xam ndax ñu ngi dund wala déet mais man bi ma ñëwee xool xale yi ah, ni ma leen gisee rek xam naa ne ñuy dundatuñ parce que booba rigidité cadavérique bi mu ngi commencé installé muy ñaari xale yu góor ak benn xale bu jigéen man tam ma daal di woo la brigade informé leen Mm, daal di woo ICP bi le chef de poste l'ICP l'infirmier chef de poste euh, wax ko li xew mu daw ñëw moom tam def constat bi bi mu paree moom tam mu woo la brigade rendre leen compte donc affaire bi nii la demee. kon nga nekk koo xam ne yaa njëkk a gis xele yi ci biir oto bi ci yan anam nga fekkee xale yi da nga fekk ñu tëdd danga fekk ñu toog wala ci yan anam nga leen. ma dama fekk xale bu jigéen bi mu féete suuf sax ki ci des tëdd moo ci ci kawam. keneen ki tam toogee tëddi na le presque mais ñoom ñëpp génn nañu àdduna waaw. d'accord ndax da nga gisee xale yi aussi gis nga leen loo xam ne dafay firndeel que rek xale yi maanaam lu leen xoj wala lu ñu leen dóor wala benn blessure amul ci ci sama gis-gis gisuma dara lu ñu leen def gisuma ñu jam leen wala ñu dóor leen lu leen gaañ et cetera gisuma ci loolu pour man daal c'est une mort naturelle li si des nag waa santé ak waa gendarmerie. ñoo koy confirmer mais man du sama devoir man li ma gis rek lay wax waaw. ci biir oto bi fan nga leen fekk ci maal bi wala ci kan. ci ci coussin bi ci gannaaw ñoom ñëpp ci la ñu nekkoon effectivement. d'accord ndax lii dafay faral di xew fii la thiaroye sur wala mu ngi fii soog am. maa ngi koy soog a gis lu mel nii maa ko fi soog a gis bon li man li tax ma tam sama sama sama tënk ma ne dee naturel la. parce que xale yi ci sama yaakaar dañu duggoon ci oto bi doon fo oto bi tëju mënatuñu génn mënuñu yuuxu kenn dégg leen loolu laa mooy sama constat man même waaw moom laa ci am waaw ba li si des nag euh, la santé ñoo koy confirmer comme sapeur yi ñëw nañ fi yàgg nañ fi trop parce que def nañ fi au moins deux heures de temps ak la brigade de yi di def seeni i fii yëpp dañ ko euh, euh, dañ fermé woon daal kenn du dem kenn du ñëw waaw espace lieu bi daal fa nga xam ne fa la xew-xew bi amee ñoom rek a fay accédé. si ay oto yu ràpp rek a fi gaare donc gardien dépôt bi da dafay profité di leen gardewaale seen seeni oto waaye mais oto yooyu yàgg nañu fi. oto yu panne la ñu vraiment li ma leen di ñaax ci sama bopp koy tàmbalee. nanu yar suñuy doom te di bàyyi xel ci xale yu ndaw yi parce que xale dafa sensible surtout fu mel ni dëkk bi xale yu ndaw ngay gis léeg-léeg bu tibis jotee ñuy taxawaatu ci mbedd yi parce que xalaatuñu lu leen di gaañ lu leen dul gaañ xale xamul dara waaw. enfin mënuma wax na sécurité am na fi wala amu fi mënuma ko wax mais daal su gënoon ren suñ ko gënoon renforcer daal mu gën a arrangé mais sécurité mu ngi commencé ci nit ki ci boppam yow boo góor góorgóorloo sécuriser sa kër sécuriser sa njaboot keneen def noonu keneen def noonu la commune wala l' day gën a am doole pour jàppale la ci loolu. Hmm, loolu dañ ciy waxtaan ak la yi la commune ñoom ñooy jël décision yi parce que avant avant commune avant le maire bi fi nekk kekk ko jiitu yàgg nañu di ko alerter ci lu mel nii parce que yàgg na fi am na fi oto yoo xam ne quatre cinq ans six ans def nañ ko fii seen borom gaare ko fi rek fàtte ko fi toppatootuñu ko sax mais maa ngi yaakaar ne ak événement bii am incha allah euh, le nouveau maire dina ci jël ay matukaayam ñoo ko bokk ñoo ko ñoo ko bokk yéen tam ñu ngi leen di sant parce que li ngeen def dina tax nit ñi xamul woon xam waaw information bi nag lu ne di ko ci dégg xale dañ leen a ray dañ leen a nangam mais en réalité lii ma leen wax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 Uh-huh. merci jërëjëf déedéet hmm. waxaguñu dara daal yàlla baax na waaw ah, merci hmm.